li fi génn lu am solo la ndaxte comme que kii di kilifa euh, euh, euh, département de Rufisque préfet bi daf ñu saisiroon pour wax ñu ñu joxe suñu avis un avis consultatif si élection département de Kër Massar bi nga xam ne dañu bëgg a jël jaxaañ bu bokk si département de Rufisque pour mu dem bokk si wax googu wax gu amoon solo la ñun bañ si waxtaanee tey convoqué ko si bés bi

donc tey Kër Massar bi nga xam ne ne Pikine la dëkk bokkoon ci département de Pikine tey ñu érigé ko commune muy xalaatu président de la République Macky Sall ñu xam ne ne aussi ñun en tant que collectivité territoriale ñun ay démembrement état la ñu te su président de la République décidé dara war nañ see war a mën a waxtaan ba ànd seex même su fekkee ne ci biir waxtaan bi sax am na ñoo xam ne bëggoon nañ ci dugal kàddu yeneen commune, yi mais dama ne leen loolu bokkul ci suñu débat ñun la ñu war mooy ñu wax ndax jaxay war naa mën a génn département Tëngéej dem département euh, de Rufisque et pour des problèmes sociologiques économiques ça, c'est ce wara nous mën donc moi, le conseil vraiment s'est prononcé à une très large majorité pour que loolu war Ce que a ni ma ko waxee rek mooy euh, ñeent fukk yi ànd nañ ci juróom-ñeent ñoo contre juróom donc le conseil délibéré pour que vraiment Jaxaay mën rejoindre en tout cas le département euh, de Kermassar, qui est le président de la République sañ-sañu taxaw por créer